صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد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 والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مبوكو جولتي مبوكو أدونا مبوكو سنغال راوتنا جين نيغا خامنتني ينغي ساخو دي سافو سين شين بي دي شمش تي في نون لين دي نويو دي لين زيارة دي لين بالو أق بو باخ باخ دي لين بال دي نيان بروم بي الله سبحانه وتعالى مو بول نيو بال نون لا نيي نياني يالا مو غودال فاني ديكو نيان مو ويرال تيري ñaan ko it mu yokk sutura bi waaye defal ñu teraanga àdduna defal ñu teraanga allaaxira di ko ñaan it mu sàmm ñu ci zahir waaye di mu ñu ci baatin macha allah ñaan ko it mu làq ñu fu yàq eggul di def comme nañ koy defee saasu ne rek di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ni moom mooy sunu bunt bu kilifa gi jàllee muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niang buñ ko waxee xel yi day dem ci. ki nga xam ne mooy présidente Chams TV di présidente Chams Asra di soxna Ndeye Assou depuis France ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko euh, macha allah feddali sunu njaal waaye tamit di jaale sunu bopp ndax ñun ñoo ko bokk waaye macha allah di jotale tamit nuyoowam donte ne sax après maa moom déggante waatuñ maanaam woo ma ko mais jot naa message am xëy na ma xawoon a jàpp mais mi ngi gërëm ñëpp. di ziar ñëpp macha allah di wane vraiment mbégteem si solidarité bi macha allah ñaan yi nga xamante ni ñaanal nañ ko ki nga xamante ne moo fi jóge di frère am mi ngi ciy kontaan lool waaye tamit di wane ni yëg na ni carrément moom ci en tout cas ci famille la nekk waaw nekkul en solo mais vraiment nekk na ci famille wan ngeen ko ko ci zahir wan ngeen ko ko ci baatin du di loo xamante ni macha allah lu muy rafetlu la lool ñun ñu koy rafetlu. Euh, non la nuyo tamit tamit euh, tim bi la koy wax parce que melni ni même kérok bi may cité ba wax ndeysaan ci nan duñu euh li fek bon xawoon cité mais li olaf di wax rek danan euh, lim manam kuy lim sasune su ne amaana nga djum ñun ñu ni no do djum da nga dul matal parce que djum moy lim ko warta lim waaye lim ñi nga lim ñëpp nga war leen lim ba fàtte ñoo xam ne waroon nga leen lim te limoo leen kooku ñàkk matal la mais duñ njuumte ñun ñàkk matal boobu daf ñoo dal bu baax a baax moo tax ñuy daw saa su ne parce que bari na ñoo xamante ni woowaat nañ ñu wax dëgg yàlla di wax ni carrément tim bi xëy na dañoo tudd fàtte leen mais macha allah di ñu wane ni képp ku ñu tudd de ñoom même bu fekkee tamit nekkuñ di woote wala di manifester wu waaye li olof di wax rek nekk ci tuñ yi nekk ci xool yi ñoo ko moo ko gën te macha allah loolu ñun xam nañ ko du ñu jug saa su ne di jot seen message di ci kontaan lool wax dëgg yàlla seen i encouragement ak yu ni mel seen i ñaanit saasu su ne macha allah rabbi ñu ngi ñu koy jottali kon ñun amuñ seen fay mbokk yi donc ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jéggalu nag kon ci lim bi. di wax donc tim bi yëpp timu Shamsi TV laa koy tuddee parce que ñi ma ci xamul ñoo ëpp téeméeri jun yoon ñi ma ci xam loolu moom xam naa si dara donc maa ngi siy jégal bu baax a baax di ci nuyuwaale nag sama xarit bopp Baye Boubacar Ndiaye maa lay nuyu di la ziar di nuyu ñëpp macha allah euh, tey nag mbokk yi ñuy fas yéene ñëw leeral ci sirru bi nga xam ne joxe woon naa ko macha allah bëri ci nag retour bëri naa ci retour lool. muy sur bi ma joxoon ci alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ci ño xamanteni ma sha allah contane nañ ci lool bëgg nañ ci waye bokkon na ci li nga xamanteni yag nañ ko doon wér amana nañ ko amé won ak nañ leen ko joxé won xeyna wuté amna ci waye ñu ñam ko ben wala ñaar ah suñu borom xeyna di leen jox ay misal donte ne résultat bi feñugul euh donc ma sha allah waye non la amé tamit ño xamanteni ñom xeyna nenañ buñu sañon ñu gën ka leral parce que ñenn ñi ñoom comprendre nañ mais xam nañ ni am na ñoo xamante ni comprendre wuñ ko te yiw la bëgg nañ euh, macha allah ñëpp jot si te comme ñoom seen làmmiñ xëy na jotewul fa sunu bos lu muy gàtt gàtt moo leen gën a xaw a guddule ñu bëggoon ñu gën ko leeralaat incha allah rabbi dinaa si ñëw ñëwaat tamit ci loo xam ne mag ñi daan nañ ko tuddee sirru tarfatal ayni daan nañ ko wax ni sirru boo xamante ni moom bu fekkee soxla nga am tarfatal ayni ku xam na ko mooy diggante xef ak xippi juste dañ ko daan wax ni soxla boo am moom mu jàmp lool ba jaaxal la mag ñi daan nañ ko ciy liggéey naam liñ ciy wax bariwul li ma koy dégg sax man bariwul mais incha allah rabbi tey dinaa ñëw donc si ñaar yooyu bu si njëkk bi donc muy sirru bi ñu joxe woon ci mbirum aajo la donc ñaar yëpp mbirum aajo la ci alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum waaye beneen bit soriwu ko parce que moom it ñoom ñaar neexoo nañ lool lool lool lool lool ba tey ci 484 la parce que li may wax rek 484 lan la moy alal moy lan moy nit ñi am nga alal am nga nit ñi lula manké barétul alal ak nit ñi 484 moy ñëwaat sa suné donc dina ci ñëw la ta loolu mbokk yi muy gëna ñaax sa mbop di gëna ñaax ñi nga xamanteni ñu ngi ñuy muy kilifa gi serigne cheikh tidiane ñang daan nay faral di wax ni nañuy saxo di def ya salam 371 yakarna jamono ji képp koo xam ne daan nga ko def war nga koy gën en tout cas gën a fonk di ko gën di def képp koo xam ne daanoo ko woon def tamit war nga ko mën a boole ci sa programme di ko def tey ñu yëg ko ak ñu bañ ko yëg yëpp a si yam réew mi mi ngi ci guuta ñu nangu ko ak ñu bañ ko ñoo si yam nekkuñ nag ci logique politique c'est-à-dire dans la vie il faut tamit des fois ngay mën a xam jamono bu nekk maanaam di contextualiser mbir nekkuñ ci période politique parce que olof jaay dafa ni bala nga ni naam ne fa tey loo politique politique même bu fekkee ni que ni danga ko def pour intérêt personnel wala moo xam tamit nga ni intérêt général bu ci mën a am intérêt bala moo am il faut fekkee tal am ba pare te nag logique bi nga xamante ne moom lañ jël nii nii nii non la gars yi di wax rek ku artuwul ku ne di nga àtte kon dafay baax saa su ne ñuy delloo su nuy xel delloo suñuy xalaat xam ni lépp lu ñuy xëccu amul lenn lu ñu war a mën a garantir ni lañuy xëccu tey tey tey tey wóoruñu ndax suba danañ ko fekkeem duñ ko fekkee mbokk yi ëllëg lu mat a sóor la bàmmeel lu mat a sóor la donc xiiroo beeg ŋaayoo bi jaru ko fi donte ni nag li ma koy wax am na si ñoo xamante ni la leen tax a du lenn lu dul defar réew mi. non la amé tamit ño xamanteni ñom seen yoon nekk ci réew mi taxu leen juk défar seen bop mo leen taxu juk jug parti au pouvoir néew aussi tamit ni opposition bi la kooku sama yoon newu ci limay wax moy ñun li ñor pour le moment ñor ñu demb ñor ñu bërki demb donte nek ñun dañu engagé wu ci politique nek responsable politique mais pour le moment mbirum politique taxu ñu juk fiñuy waxé ñun du opposition du parti au pouvoir ñepp lañ ci yamalé li gëna intéressé moy le Sénégal nañu bokk ndey bokk baay xam ne instant instant bii ñu nekk ci impasse la ñu nekk qu'on la vérité ci impasse la ñu nekk mbokk yi nañu gën continuer di faral di saxal sunu yaa salaam yi ñu doon def cent 371 mais boole kook jëfe nit ki doo toog rek di ñaan yàlla jàmm te cultiver woo li lay may jàmm tey doo defar sa tool rek ba ko noonu jiwoo fa dara toog naan na ma yàlla may meññante bu bu bu nawet bi ñëwee wala bu nawet bi jeexee naa récolter loolu c'est impossible il faut nga ji ba pare dogo ñaan suñu borom mu fekk si la nañu ji jamm suñu jiwee jamm après ñaan suñu borom insha allah rabbi mu fekk suñu mu neex mu nakari olof njaay danaan ay du yam ci bop borom ta jamono ji ñu toll ni jamono ay lañu nek il faut ñu nangu ko bu ñu nanguwul li fi ne góom bi bu ñu nanguwul ni gom la du mësa wër parce que duñ ko fajj il faut ñu nangu maladie bi do ko mëna fajj mais li fekk nanguwuñ ko duñu ko fajj donc encore une fois muy parti au pouvoir muy tamit opposition ñepp nak la wax ñun de liñu ñor lenn la muy sénégal ku sénégal ñor nak la la jital manam la cey jitu autant pour moi moy lan muy jamm sénégal parce que jamm ci la lepp xaj encore une fois nañu jital xel yi encore une fois nañ jital xel yi fasiyene ñaan borom bi yalla subhanahu wa ta'ala nak mu may ñu jamm ni ma waxe sa su ne dañ koy jii doko arose, do arose, bir mbir mo xamanteni ni ko donc loolu la ni won tamit dina ko wax bu ñuy fàtte insha allah rabbi 371 ma faral di def ya salam 371 ñaanal suñu nyanal ñaanal nyanal gi way ñaanal senegal yep ñaanal aduna bi yep ndax kat sha allah gal gi bu muccee ñun ñëpp mucc waaye bu këppat ñun ñoy donc la ni won dina ko ci indi euh, bu may ñew nak ci leeral ci alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum dama ni woon pour légui ñu comprendre ko c'est facile ginaaw bo defé sa ñaari rak'a ba pare jàng si sar bu la neex fatiha ak sar nga ñëwa deuxième rak'a fatiha fatiha ak so soo mele da ngay liggéey istighfar istighfar buñ ko waxé moy astaghfirullah lool yaaka na xam nañ ko dañuy liggéey donc astaghfirullah staafirullaha staafirullaha staafirullaha dañ koy liggéey au lieu ñu liggéey ko 1947 bi ñu xam ni moom mooy adadu nafsim c'est-à-dire que moom mooy li mu astaghfirullah duñ ko liggéey 1947 dañ koy liggéey 1463 maanaam 1463 lañ koy liggéey mbokk yi soo ko liggéeyee 1463 léegi li lay manqué pour nga am 1947 yële mooy 484 moo lay manqué. mille euh, mille quatre cent soixante trois yi nga liggéey ci astaghfirullah boo ci liggéeyaatoon yeneen astaghfirullah quatre cent da am mais on n'a pas besoin de mille neuf cent quarante sept dafa am leneen lu ñu soxla maanaam jéggalu la ñuy def ba pare waaye dañ naan yàlla nañu mucc nang ñu setal waaye nga mosal ñu looloo tax donc istighfar bi du mat dañ koy def 1463 j'espère que leer na jarul nag ay 3 laay commencé 9 laay commencé un lay commencé non 1463 loolu dinaa si ñëw li tax ma wax loolu mais pour ma bañ a dagg logique bi boo paree donc sa ñaari rakaa da ngay def astaghfirullah 1463 soo paree 1463 léegi nga def alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nga continuer nag ni laa taaquzuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi l ard man za allazi yasfa indahu illa bi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو علي العظيم لول une fois nga koy def lima wax ni yep une fois nga koy def boko defé une fois léegi nag nga ñëwaat nga ni alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayum maanaam ginnaaw ba nga defee la une fois ba pare léegi donc da ngay ñëwaat donc nga ni alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayum benn alif miim mim allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayum ñaar alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa foofu rek ngay yem ñett di ko def di ko def di ko def ba am 482 ci boobu bu 482 motee nga defaat ni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 nga def alif lam mim allah la ilaha illa wal hayyul qayyum tout court 482 fois doga indi wat alif lam mim allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la taqzuhu bamu jeex une fois wat boko bolé mu jox la 484 donc ni ngay liggéey alif lam mim allah la ilaha illa wal hayyul qayyum j'espère bien que cette fois-ci yakarna ni lerna donc 1463 ci istighfar soo paree nga indi alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la taquzuhu sinatun wala nawmun ba mu jeex une fois nga indi alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum tout court 482 fois indi wat alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la taquzuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati ma fi al ard ba mu jeex une fois j'espère bien que cette fois-ci leer na léegi nag fépp foo defee alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum def la taquzuhu sinatun ba mu jeex da ngay marqué pause def lii sa yéene jarul wax yéene ko ci sa xol soo paree nga doo ko def quat cent 482 yee indiwaat bële daal di defaat sa yéene boo ko defee macha allahu rabbi euh, ñaan bi day day day daal di mot j'espère bien que cette fois-ci euh, faaleen yi ak jaañeen yi bon jaañeen yi sax bàyyi naa leen tooñ parce que samay nijaay rek donc faaleen yi ak mbengeen yi euh, j'espère bien que cette fois-ci dina dina dugg bu baax a baax donc loolu won ñaan borom yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ci dégg ak top wala bok li gaay di wax rek sa suné buñ ko déggé nañ ko top manam moy nañ ko jëfé waye nak cette fois ci kon dañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ñu dégg ko jëfé ko waye tamit mu nangul ñu parce que mom rek mo mëna a nangu lii ñaan rek la tuddu day am ak du am ci borom bi yàlla subhanahu wa taala la dépendre bala ma ñew ci deuxième bi moy sirru tarfatal ayni bi may wax li tax sank mani xëcc fii wala xëcc fale bon ku nekk logique peut-être suñu gàtt xam-xam la mais man doxewuma noonu. je dis pas que baaxul wala baax na man laa parce que dafa am ku ma si mës waxal benn jour mu ni ma ñuy waxtaan ci benn sirru bu ma ko doon jox ndax dafa amoon ku tawat. léegi mu ni ma ndax moom da koy xëcc daf lay def wala jalb maanaam day xëcc wala day dàq parce que dañ ni booy xëcc ab mbir da ngay commence ordre kii ngay def décroissant autant pour moi croissant su fekkee dangay ngay euh, da ngay da ngay dàq nga def euh, ordre décroissant par exemple booy booy booy xëcc da ngay commencer ci suuf jëm ci kaw bu fekkee nag mbir mooy dàq nga commencer ci kaw wàcc ci suuf mu wax ma loolu ma ne ko d'accord léegi supposons ñi doon def yaa shaafi par exemple maanaam ci nit ko feebar léegi yow mi feebar est-ce que bu ma la waxee ni defal. 484 supposons ni la defal 484 légui yow da ngay dàq wala da ngay xëcc wala bàyyi ma yox sax 784 pour chiffre yi 7 8 4 est-ce que 8 nga wara commencer wala 7 nga wara commencer parce que bu fekkee da nga ni logique su faites ni da ngay xëcc wér gu yaram kon ci 4 bi nga wara commencer après ñëw ci 8 bi après ñëw ci 7 du plus petit au plus grand légui bu fekkee nag da ngay dàq feebar bi kon ci sept ngay commencé ñëw ci huit ñëw ci kat wala ki bëgg wér moom day xëcc wér lay xëcc wala day dàq feebar am na problème léegi yow ndax feebar bi ngay dàq wala wér ngay xëcc moo tax dégg léegi ki xam dafa demee logique ni moom day dàq feebar kooku bu ko neexee donc <laughs> moom na commencé fu kaw mu ñëw ci ñëw ci suuf parce que day dàq feebar bi ki nga xam ne dafa bëgg wér moom bu ko neexee donc moom na commencé ci suuf dem si kaw parce que day xëcc wér. man non la ko donc li ci am solo moy na mot tay benen bi dama nan supposons ñu ni la defal 784 mais est-ce que boy def 784 nga def 4 ba paré bayiko jang lenen après ñewat est-ce que def nga 784 est-ce que faut 4 après nga def 8 après nga def 7 je sais pas mais en tout cas man li mo dal sama xel. te it am naa ay kilifa ñu ma waxtaanal xam naa bokk nañ ci gis-gis du ñëpp nak mbirum ñaan nak dafa lo xamanteni yi ni nit ki da koy def selon ci xalaatam waaye selon ci jàngatam selon bon expérience entre guillemets parce que man moom li may wax day leer saa su ne balaa gars yi di ma rentré <laughs> ndax amuñu expérience mais daal en tout cas l' essentiel li ma ci bëgg a wax mooy na mot na mot man daal bu ma ciy joxe képp ku may laaj na mot laa lay wax li bon daal mooy mu bañ mot donc bu ñuy ñëw mbokk yi ci beneen bi sa rotar fatal ayni bii wit nag yaa ngi koy liggéey guddi amna loy liggey gudi amna loy liggey looy am nga soxla bu jamp bu la jaaxal wala même bu dee du soxla bu la nexé tour rek nga bëgg kay ma jox la tour bi nga koy continuer di liggey mbokk yi insha allah rabbi di nga mucc di nga mos te mucc gi nak ci zahir di nga muccit ci batin ci kiko saxal borom bi yalla subhanahu wa taala nangou ko nak la xaw nga nak ki yalla nangul mais ki yalla nangul insha allah rabbi da nga mucc da nga mos euh, mu ngi ni boo defee moom tamit sa ñaari rakaa bu dee guddi gi yaa ngi def astaghfirullah astaghfirullah razaq moom ngay def astaghfirullah razaq astaghfirullah razaq moom ngay liggéey astaghfirullah razaq astaghfirullah razaq astaghfirullah razaq nga liggéey ko 484 ba tey mbokk yi mooy ñëwaat 484 bi mën nañ si ñëw jàng si lu baree baree bari code la boo xam te ne jamono jii ça marche à merveille même donc staghfirullah razaq yaa ngi koy liggéey 484 moo jàppat alif lam mim allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ba tey donc staghfirullah razaq staghfirullah razaq staghfirullah razaq yaa ngi koy liggéey 484 et je dis bien guddi nga koy liggéey nga def allahuma salli ala miftahu rahma اللهم صل على مفتاح الرحمة اللهم صل على مفتاح الرحمة اللهم صل على مفتاح الرحمة اللهم صل على مفتاح الرحمة اللهم صل على مفتاح الرحمة 484 إن شاء الله moom tamit nga koy liggéey soo paree nga def yaa mën naanu yaa zal jalaali wal ikram 1000 am na ñu naan ma am na loo tëb certainement dina am xëy na kilifa yu ma ko wax mais li tax ma tëb ko xam naa ko parce que ci talsam la moo tax talsam. dañu bokk ci ñuy encourager nit talsam mais day dox san pour autant que lee mu ànd te dinaa leen wax le pourquoi te bokk na sax lii gën a gaaw ci lee parce que bu dee talsam bi da cee dugg rek li tax tamit ma koy leeral mooy bugg def ñu jàpp dagg la déedéet man je marche pas comme ça mais bu dee talsam bi da cee dugg dafa am ay sarax ak ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne pour nit ki respecté ko day metti te pourtant nii nga koy awee sans pour autant que sarax yi ma lay wax te da koy def day dox. te la preuve gis nga lii ma lay jox nii boo ko liggéeyee liggéey ko au bout de neuf jours yu tegaloo nga xool sa digganteeg nit ñi ngay njëkk xool sa digganteeg nit ñi même boo daan nekk nit boo xamante ne bu ñuy séddale ba ñëw ci yow tëb la wala bañ la jox nga essayé ko demal ci xew ñuy séddale soo mëntu ci ñu ñuy njëkk jox ngay bokk wala ngay romb ngay gis ay nit ñoo xam da nga leen daan nuyu nga naan da nuyoo duñu la fay. essayé lii mbaa nga nekk ci benn entreprise tu penses que dañ la détesté wala faale la dañ la délaissé genre essayé lii nga def ko. donc ma ñëwaat ci boo defee astaghfirullah arrazaq 484 allahuma salli ala miftahu rahma 484 nga def yaa xannaanu yaa mannaanu yaa zal jalaali wal ikram yaa xannaanu yaa mannaanu yaa zal jalaali wal ikram yaa ngi koy liggéey 1000 nga def yaa azizu yaa dayyaanu nga liggéey ko 1000 yaa azizu yaa dayyaanu nga liggéey ko 1000 lii ngay liggéey mbokk yu guddi gi mais nag chaque jour suba bi da ngay jàng suratul fatih muy inna la ko faj da danga koy jàng trois fois lii kese kott rek dong la sarax bi nag mooy chaque fin du mois chaque fin du mois li ci gën boo ko mënee chaque deux semaines semaine baax na mais lu mu bon bon chaque fin du mois wala chaque quarante jour ça dépend ci yow mën ngay génne quarante et un tàndarma quarante et tàndarma chaque fin du mois loolu mooy sarax bi du leneen mën naa ko répété waat. da ngay def sa ñaari rakaa guddi gi nag nga koy liggéey doo ko liggéey suba nga def astaghfirullah razaq 484 allahuma salli ala miftahu rahma 484 soo paree nga def yaa xannaanu yaa mannaanu ya zal jalali wal ikram mil nga def yaa azizu yaa dayyaanu mil chaque suba inna fatahnaa laka fathan ngay jàng trois fois mbokk def ko bu dee estime nga bëgg si nit ñi def ko ma li may wax rek li lay ijaba ba ngi ñew ci tour bi tour bu gaaw la nak yoon bu gaaw la insha allah rabbi ci ki koy liggéey su ko borom bi yalla subhanahu wa taala nangu ñu ngi ñaan nak mu nangu ko euh, waye tamit yene biñ ci am ñun ba joxe ko niñ ko cibbe suñu xol yene ko yalla na ci borom bi yalla subhanahu wa taala xole fofu rek fofu rek bu ko xole ku ko jariñ yalla xam nako donc li lañ indi won tay ci suñu tawfiq wa keur cheikh ahmed tijane ñang euh, di wax nak ngeen baal ma xam naa fa laay daanelee muy euh, comme big yi nga xamante ni ñu ngi ko doon joxe ci examen yi ak saafara beeg téere bi macha allah commencé wu nañ ko di ko joxe. honnêtement pour dire vrai man damaa ne woon sax tey sax dama ci waxtaanu góor gi dama ne woon dañ koy arrêté ñu dootuñ ko defati parce que du ñëpp nag mais mbokk yi may laaj su fekkee tamit ñun ñoo nekkul si dëgg man chaque jour dama koy wax nañ ma ko nit ñi di wax. ñun dañu ñëw ni ñaan la ñuy def ñaan la sunu participation la boo xam ne góor gi yàgg na ko di def teg ko it sunu loxo ñu dinañ ko continuer incha allahu rabbi jéem a mission bi. neewuñ ko ko def par force da ngay am ak doo am kooku si coobare sunu borom la mais am nañ ci yéene bi def nañ ko nañ ko war a defee te naka daan jëfandikoo de ah majeure partie bi daan nañ ci gis seen bopp macha allah ginnaaw ba boo jàngee sabablu ba pare laajuñ ci ma sàmba di dërëm. laajuñ ci ñaar dërëm laajuñ ci dara bu fekkee nag doomu aadama daf lay jox dara bëgg nga mu barkeel effectivement c'est tout à fait normal nga ni da nga ciy barkeelu d'accord moo tax dàquñ ko mais bu du woon loolu wallahi dañ koy sax dàq parce que xam nañ yenn doomu aadama yi ana naka la ñuy xalaatee mais yooyu yëpp c'est pas grave mais mbokk yi yow ñun ñoo jënd big saafara bi ñun ñoo ko bind jël sunu temps def ko dem jëndi bouteille defuñ ko ci n'importe quelle bouteille dem jëndi ay bouteilles yu bees tàq. sama caméraman maa ngi koy nuyu Baye Abdou sonn ci bay bëgg a dee jàmb bay bëgg dee di di di sotti di def lépp dem jënd suñuy carte mariage ak yépp di bind lépp pour yéene gi ñu am ci doomu aadama yi mbokk yi ñu defal la loolu léegi yow joxe woo dara ñu la koy tegal pour livreur bi léegi yow tu attends à ce que ñun ñu fayaat livraison bi léegi à la limite non doo comprendre yow ngay xalaat ñun ñu jëlaat livraison bi ñu fayaat ko mais est-ce que loolu bu fekkee nag wax dëgg yàlla man maa juum tamit ngeen wax ma maa juum mais man mënu ma comprendre loolu man du moo njëkkoon ni lii dañ koy arrêté moom nee na moom bu ma ko si wooyee dootul ñëwati ma ne ko dañuy arrêté mais góor gi ne déet amul arrêté continuer leen ko mais honnêtement c'est-à-dire que li wul nit encouragé wul doomal cest à nit bu nekkee ci dara tamit il faut des fois ñu demee xel neexul ci xol yow ñu def du ñëpp nag du ñëpp mais yow ñu defaral la jox la. même boo ñu newul jërëjëf du garaaw boo ñu joxul dara du garaaw yéene lañu am bëgg nañ képp ku ñuy suivre képp ku ñuy toog ñun bëgg nañ fi nga nekkoon ren déwén fekk nga passé foofu di dem ñun loolu mooy suñu objectif moo tax ñu def ko mais xaaruñ ci leneen mais nag dem ba nag ñun nga xalaat après ñun ñoo lay ñoo la ñoo lay fayal livraison ba ngay xuloog livreur bi ah loolu nag vraiment doy na waar xëy na peut-être ñun ñoo leerul woon ci wax ji beneen yoon. bu ñu yàlla mayee ñu fekk ko tal léegi danañ ci taxe prix xam na léegi nañ ci taxe prix comme ñëpp ku ku bëgg mu jënd comme que njaay la léegi ku bëgg mu jënd ku bëggul mu bàyyi ñu baal ma ci kàddu yu xaw a diisi mais vraiment dalay découragé loo honnêtement mbokk la woon xarit professeur bu motal professeur ni ma koy waxee donc di leen jig daje euh, beneen yoon ci sunu tawfeex waa kër Cheikh Ahmed Tidiane salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.